asalaamaaleykum mbokki internetu ATV comme ni ngeen ñu ko gisee ñu ngi fii nii ci rond-point Mamadou Diop ci marché bi nga xamante ne ñu ngi waa Yewwi Askan Wi ñoom ñoo ko amal fii nii tey ci 45 départements yi nekk fii ci Sénégal te ñu nekk fii ci diwaanu Mbour nekk fii ci diwaanu Mbour encore ngeen ko gisee ñu war a dem ba fi nga xamante moom mooy euh, feene nuñ koy waxate ñu war a dem ba fi nga xamante ne moom mooy camp bu sapor ànd ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy manifestant yi ñu leen di na nag ab manifestation la boo xamante wala marche pacifique la te ñi ko amal di ñu waa yeewi askan wi nekk ci diwaanu Mbour leen lañ xamee ci fii département bu département bu Mbour kon nag lii moo fi xew ñu fas yéene ànd ak manifestant yi comme nuñ koy amalee sans su ne ci seeni marche xanaa rek ñu jéem dugg ci biir gars yi amal ay yenn eh, jéem a jël ay réaction pour gars yi nga xamante ne tey jii ñu gis ngeen ko ni mu fa demee ni ci tay nous ñu gis ne police yaa ngi doon chargé ci nga xamante ñom ñoy leader yi Yewwi Askan Wi euh, ana lan ngay wax ci loolu. wa diko ñaawlu rek pour c'est comme on dit toujours un arbre qui tombe fait beaucoup de bruit donc ñom dañu nekk ci fin de règne c'est normal que angoisse bi stress bi lepp len quoi mais di ont won li vraiment leur vraie nature Sénégal une démocratie ils ont hérité d'un état de droit donc bu a tey les règles les plus élémentaires loolu day carrément que c'est pas des hommes d'État donc l'opposition a sa place dans l'échiquier politique Nous avons a jox suñu cër ba mu mat vivre ça c'est de l'acharnement c'est de la méchanceté c'est de la cruauté donc nous moom dañ koy ñaawlu fa ñaawlu on est dans un pays stable un pays sénégalais mieux naw ko en Afrique dans le cadre de sa démocratie mais tey léegi lu ñu dund moi, je vraiment il manque de sérénité mo wara un tatoulement c'est un cafouillage voilà ay ordre yo xamné kenn du xam fu mu déjà barricade de euh, Ousmane Sonko du le siège du PRP ñu dem euh, barricade ko Le yeb c'est pour empêcher à nos leaders de la conférence ñu exprimer pour faire passer un message euh, sénégalais et ci loolu Ousmane Sonko pour wuy souba wala li nga comme moi, je me et que le certificat médical délivré c'est pour 10 jours. Normalement, il a un repos médical jusqu'au 31. Maintenant, journée je ne sais pas ce qui adviendra. Mais tout est-il qu'on est debout pour faire face à toute forfaiture allant dans le sens de compromettre non seulement son intégrité physique, mais aussi euh, sa, sa candidature en 2024. voilà incha allah. ok merci euh, moo ngi noonu moom mooy docteur Diaité di coordonnateur départemental bu PASTEF bi ci diwaanu Mbour. kan la. dafa am lu ñuy naqaru lool lool muy le fait que ñuy barricade à chaque fois bu ñu convoqué président Ousmane Sonko ñuy barricade loolu daf ñoo naqari lool te ne dafa jot mu dakkan ah. dafa jot mu dakk président Ousmane Sonko la comme bépp citoyen amul kenn ku ñuy jox. convocation fii au Sénégal di la jox itinéraire bu ngay jaar wala ñuy barricade sa kër kaay kaay yi dafa doy suñu avenir la Macky Sall di fooye Macky Sall yow waxal directement Macky Sall Macky Sall c'est ay ragal ragaluñu kaso on est des ñun on est des jeunes ragaluñu kaso

président Ousmane Sonko dafa sonn si anam bu muy dund président Ousmane Sonko dafa yàgg xeex ngir Sénégal dama jàkkaarloo wala ko président ñu gis nañ lu ngay daj te yaakaar nañ ne wàccoo nga ak ñun billaahi wallaahi taalaay bu ma leeroon ne tey su ma joxee sama bakkan Sénégal jag ma joxe ko asalaamaaleykum wa rahmatulah gars yi ñëpp ñëw leen dañuy daal di jege ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor moto yi tey jii ngeen ñëw ci manifestation bi nga xamante ne Pastef woote na ko ana tey lan ngeen di lan ngeen di sentir tey. non jaar mu waa garaaw faasal kii mu waaw manifestation bi li ñu fi indi mooy Macky Sall jaay doole gi mu nekkee lañ bëgg mu dakk waaw mënul dëkk si jàpp di tëj di tëj tëj ba kañ na bàyyi Ousmane Sonko Macky Sall man man du candidat Ousmane la nañu may Macky Sall dictateur la. dictature bi ñu doon wax yépp dictature rampante dictature bi mi ngi fi il est de il est debout waaw loolu suba suba moy le 30 ngeen fas yene wuñu ji ana lan ngeen di xaar nge mu dem ci jamm ñu ci ci jamm waaw lu ko jaral jaral nañ lu ko raw waaw Macky Sall duñ ko bayyi mu def nek lu ko neex mu def ci réew mi réew momu moomu ko donn ko ci ndey donn ko ci bayyi réew mi ko ko joxoon ci ay élection na bayyi ku bëgg bokk bokk mom nak ne sera plus candidat nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs amna ñaar na dem bayyi ñu ñu continuer tànn keneen ku ñu neex ñu imposer keneen ku ñuy jiite ñun ñooy xool ku ñu neex ñu tànn ko te ñun Ousmane ko lañ tànn te lu mu ko jaral jaral nañu ko. waa dégg ngeen ko mu ne Macky Sall dootul nekk candidat du samay kàddu euh, moom moo ko wax comme ni ngeen ko gisee fii toujours ci manifestation yi nekk fii nii ci rond point Mamadou Diop ñu daal di fee war a jógee dem ba fi nga xamante ne moo di camp sapeur waaw comme niñ koy waxee bokk na ci la ñuy wax Macky Sall dictateur Mame Mbaye Niang voleur la. comme ni ma leen ko waxee sànq rek du samay kàddu ñoom ñoo koy wax.

na bàyyi xoqatal bi dégg naa discours am bu muy wax ne bu soobee yàlla ginnaaw ba mu waxee la mu jëkkoon a wax ne la fi nekkoon la fi amoon du fi amati daal di jël alal li réew mépp jënd ji ko ay arm jënd ji ko ay matuwaayu guerre mendu ko ne ci réewum guerre tey mendu tey góor ne nit ñi moom kenn takku fi tubay gënu fee ñi me kenn dee man de ma soxla tey ma dee ci projet bii. waaw ah, salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp waaw waaw man mom awma lu may man la Aliou Diagne donc euh, bok ci jeunesse su PASTEF nekk un coordonnateur de l'université Amadou Mahtar Mbow lenn rek la gis ngeen fiñu ñu ni rond-point bi c'est une place symbolique parce que lan c'est un martyr bo xamantene lu mel nii moo taxoon bakkanam wadd donc il s'est sacrifié pour le Sénégal ñun aussi kogu non tay amul dara lo xamantene tay dal na jombu ñu donc ñun aussi on s'est engagé à ce que tay comme 2021 2011 tay, waron nañ tay en 2022 tay, waron nañ dépasser combat bo xamantene en 2023 du moins combat bo xamantene en 2020 2011 euh, dañ ko don xex. donc ñun donc recul démocratique bobu non tay, ñun nek ni tay, donc dañ koy xex jusqu'à la dernière énergie muy lo xamantene tay, L'opération l'oppression bi nga xamantene tay dañ ñu kaa tek ko bép patriote tay yakarna naa patriote au Sénégal c'est un crime loolu nak duñ ko nangu li ñu def ni c'est un droit constitutionnel bo xamantene constitution Sénégal moo ñu ko may. tay delloo ana lan mo waralon sa téway fi ni donc tay défé na li jenn ñep xam nañ ko mooy injustice bi nga xam ne nemmeeku nañ ci biir Sénégal nañ ne dëkk bo xamné la justice dafay jeex tak amatu fi en général pour teunkal la wax ji moo ñu fi indi tay parce que bo xolé li jot xew ci dëkk bi yépp lépp lu ko waral bokay koy ci waxi 3e mandat la.

waaw maa ngi rafetlu teewaay bu baax a baax di kontaan ci gars yi bu baax a baax euh, di wax ne ma Ousmane Sonko nañ ko may jàmm Macky Sall su bëggee rek moom jàmm nañ ma Ousmane Sonko jàmm ndax c'est que Mame Mbaye Niang mënut a sàcc ñu alal ñor ko dem atta ji jëm a xool ndax sàcc na mu sàcc ko ñu ne dañ jëm a xool ndax dossier de déformation te procureur dañ wax dëgg te yàlla tax procureur dañ ne procureur de la république yow yow askan mi nga fa nekkal mais nga bëgg fi nekkal Macky Sall ak ñi ma àndal procureur nañu wax dëgg te yàlla tax démb lu mu wax lépp dëgg mais li mu wax lépp dara du ci dëgg ndax bu doon wax dëgg te yàlla tax rek boobu ñu rey ki nga xam ne nii bokkul sax ci marché bi doon dem di di jaay mburóom ñu rey ko lu tax waxul ci kooku lu tax waxul ci kooku médecin bi ñu jàpp lu mu def deful dara Macky bu bëggee wax li mu am na ñoo xam ne war na wax ci ñoom milliards ñu sàcc nañ ci wax li ñu sàcc ci réew mi nañ ci wax ni ñi amuñ lu ñu lekk amuñ lu ñu naan ndax dëkk bu métti nga bëgg na ci réew mi di fontoo nit ñi Macky Sall dañ la fal ngir yàlla dañ la fal ngir nga dimbali ñu defal réew mi mu baax réew mi su baaxoon kenn du la wax dara kenn la def dara. sonko yi ah, ba tey ñu toppal leen ñi nga xamante ne ñoom ñooy manifestants yi. Euh, ci marche pacifique bi nga xamante ne Yewwi Askan Wi wala ànd ko ak bépp parti bi nga xamante wala mouvement bi nekk ci biir Yewwi Askan Wi amal na ko fii tey jii xanaa ñu jëlaat ay réaction grand ziar nañ leen. waaw ah, delloo ziar. nag manifestation bi noo leen ko gisee tey ak weeru koor bi nga xamante ne moom lañ nekk. jaayante rek bëgg li fi nekk jóge fi jaayante rek injustice bi magistrature bi nu muy taxawee. ak dund bu cher bi dëkk bu metti bi looloo ñu waral moo tax luñ def rek ak weeru koor bi duñ ko yëg ndax tey jii moo d'ordre bi nga xamantene wa waa yeewi lancé nañ ko mu wara nek nekk fan yo xamantene da ngeen koy manifester ndax pare ngeen pour taxaw ci lolu nga xamantene ñom wot nañ ko malgré préfet bu Dakar sax tey jii daal dina dakal ben manifestation bo xamne war na fa am tey jii ñun bañu paré du tay don de soi pour la patrie bañ ko signer la lepp suñu lepp paré fu ñu fekk rek ñu ngeen yàlla tax acca kon ñu ngeen ko aca kom ni ngeen ko gisee ñu ngi fi ci quartier 11 novembre top itinéraire bi rek ñi nga xamantene ñom ñoy manifestay soxna ci nuyu nañ la. ma ngi lay fay sëñ bi. ay nga ñëw fekk ci manifestation parce que wa suñu président wote wax deug fa yalla dañoo bayyi suñu liggey bayyi suñu yité ci wéru koor bu metti gi ñew fas yéene def suñu marché bi président bu mu wax. waaw ñu ngi ñaxtu nak ci nekkinu réew mi mu nekké ni metti nañu trop metti nañu trop ay jeunes. ay xale yu ndaw ñuy jàpp di tëj ay xale yu tuuti nekk biir kaso ay xale yu wax dëgg fa yàlla daal vraiment moom moo ñu tax a jog nii ak jàmm réew mi daal la ñu bëgg jàmm réew mi ndax Sénégal jàmm la xam ci ñun ci jàmm la ñu juddoo ci jàmm la ñu fekk suñuy waajur wax dëgg fa yàlla jàmm daal la ñu bëgg waaw na libéré Sonko mu dox ci dëgg nekk ci dëggam nekk ci yoonam ñu bàyyi ko buntu këram bii ñu dem baraake ko noonu nga jàpp kër gi nii def ko mel ni laa la wax nit ku def lu bon te président Sonko deful dara lu dul day woote candidat comme ñëpp waaw wax dëgg fa yàlla ñun loolu la ñu bëggoon na ko may loolu. tey jii ñu ngi xaar mun war a wuy ji suba wala déet ana lan naka ngeen fas yéene taxawee journée suba gi. incha allah ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañ ci yàlla defal ndox bu sedd guy. waaw wax dëgg fa yàlla ñu ngi ci ginnaawam ñun ñu ngi ci ginnaaw lu mu woote dinañ def bu soobee yàlla bu ñu nee waaw ñun ñu ne waaw bu soobee yàlla ñu ngi ci ginnaawam waaw. ok jërëjëf comme euh, ni ngeen ko gis nee na lu mu woote moom ñoom loolu la ñuy woote. tey jii euh, ñu gis leen ngeen un euh, engagement ba nga xamante ne patriotes yi àndal nañ ko tey jii surtout ci weeru koor gi ana lan moo waral loolu. waaw am lu ñu métti rek ci réew mi ñu dëkkee nga xam ne ñun ñëpp dañ fee dëkk Macky Sall moomu ko doon donn ko ci ay waajuram te gis nañ ne instant bi injustice bi bëri na ci réew mi ñu ngi jog di xeex ngir ànd ak suñu leader mooy président Ousmane tey dañ fas yéene jox ko suñuy bakkan man patriotisme pare naa pour mu folu ma jox ko sama bakkan ndax réew mi ku nekk gis na lu fi nekk. réew mi bu nekkoon Macky Sall bu nekkoon dañoo may jàmm sax te liggéey luñ ñu mu tene ndax ñi ngi suñuy sàcc bu milliards ba bëccëg scandale yaa ngi fees jële ci réew mi teg parce que di teg di teg askan ay ay ay ay problème yoo xam ne ñaata nit ñoo nekk ci réew mi ci ay koso si tribunal yi si biir koso yi te defuñu dara wax dëgg yàlla réew mi képp koo xam ne toog nga jamono ji ñu toll da nga xamul ban enjeu moo nekk ci réew mi jamono ji injustice yi bëri na ci réew justice amatul ci réew mi te si nag bu amul ci réew jarul kenn di dëkk ci réew mi dëkk ci sax ab danger la ndax da ngay toog ci kër ñu ñëw jël la yóbbu ci kosa gi ñaata nit lañ fekk seen kër jël leen yóbbu ci kosa loolu doy na waar lool moo tax ñëpp dañoo war a génn xeex réew mi li fi nekk pour mu jógee fi te li fi jóge nekk yëpp mooy régime Macky Sall bi nga xam ne liggéeyuñ ay tappale la ñu fi nekkee ay scandale yi dul jeex sàcc mu dul jeex kon dafa jot ñu téye seen loxo ne leen doy na ndax Sénégal ñun suñu Sénégal la kenn moomu ko benn minorité bu ndaw jël Sénégal téye ko en otage loolu si ay 17 millions de habitants loolu dafa yomb dafa jóg ñëpp génn ci mbedd yi ñu xeex pour réew mi li fi nekk jógee fi loolu dong moo waral suñu teewaay ci mbedd mi ak koor gi loolu kese la ah sama société yëngatu ya na di ay cadeau yo xamantene ne manifestation euh, manifestant yi ñong koy yëkëti fi ni euh grand ziar nañ la. ngi leen koy dalu bu baaxa baax. ana lan mo waralon sa téway suñ téway fi waaw que si si bi bi bi naag saay Sénégal rek Sénégal bi nga xamne ne Macky Sall da ko jël rek euh, momal ko bopom rek jël ko melni mom mom Sénégal melni ko momalé quoi. donc ñun loolu lañu gis ne que Sonko mo ñu do dafa ñu ñu benn programme bo xamne ko gis gis suñ bop donc loolu lañ toppee Sonko mu jaral ñu lo xamne sa buñ ko woy ñu dañuy jog balaa ñu ko woo dañuy jóg préparé wan ko ne ko ñu ngi sa ginnaaw quoi comme que yaa ñuy doyloo yaa lañ doyloo Sénégal loo jóg rek incha allah bala ngaa pare ñun dañ ci pare fekk si la quoi. ana la ñu a comprendre soxna si soxna si ana lan moo waraloon sa teewaay fii sonn dëkk boo xam ne corrompu justice corrompu sonn rek sonn daal danoo sonn danoo taay danoo Nous waaw ñu bëgg daal Macky abal ñu Sonko yow réew mi dictature jeex fi mu libérer Lamine Niass Ablaye surtout yarga si ndax yarga instant yi dañ monté naan moom moo pompé Sonko te c'est un vrai patriote engagé du def loolu waaw kon donc man je je je précise franchement ndax du du aussi nous on libère tous les détenus politiques. Nous sommes sommes le militant yi détenus wax PASTEF je me présente d'abord euh, Boubacar Diallo responsable de cellule à Malicounda alors donc ce nos manifestations, c'est euh, de montrer notre mécontentement vis-à-vis des arrestations arbitraires Madame euh, Diapi yi Macky Sall ak régime nek di def di japp euh, wa PASTEF ak wa yewi Askan wa opposition bi en général té ci lo xamni wax deug yalla tegewul ci dara ci lenn wax nous, manifestation c'est des c'est une manifestation ou bien ce sont des manifestations c'est des manifestations légitimes dans la mesure où la constitution du Sénégal nous permet de faire des manifestations à chaque fois que besoin est donc nous pour nous manifester tout simplement qui dérive autoritaire le régime Macky Sall nek di def sunu sunu sunu yi nit ci wala ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa Yewwi Askan Wi waaw xanaa ñu continuer rek ñu jël ay réaction gars yi nga xamante ne ñoo teew ci manifestation bi euh, frère ziar nañ la. na ngay delloo ziar. waaw naka koor gi. sant yàlla tey ñu gis nga journée bi metti na naaj bi tàng na ñoo gis benn engagement boo xamante ne taxawee ñu ko ànd lan moo waral. waaw da nga mujjee wax benn baat muy engagement. te partie parti bi ñu bokk fii suñu kilifa si suñu responsable parti Sidi Mouhamadou Moustapha Sy dañoo baat mu ne engagement c'est différent de adhésion nit ki boo engagé sa deret du ko sa ñaq du ko sa bien du ko fekke malgré koor gi ak xiif gu ñu xiif yëpp ko parce que aujourd'hui principe question de principe la ñuy muy démocratie muy liberté Macky Sall li mu nekkee kenn du ko ko may moo ko gën a xam sax duñ ko may dara dara dara duñ ko ko may tara tarafatal xëy na duñ ko ko may lenn nay mën a am mu libéré ñi ci kaso bi wala ñun ñu ànd ak moom dugg ci biir kaso bi salaamaaleykum wa rahmatulah. tey jii ñu gis ne ay député Yewwi Askan Wi police daan chargé seen kaw ana lan nga gisee loolu. waaw réponse bi dina ñëw réponse bi dina ñëw parce que stratégie nag kenn du ko wax ci kenn du ko kenn ko mettre en public ah, mais réponse bi na am réplique dina am incha allah loolu na seen xel daal. dara ana lan nga ciy sànni mu am ci li wax nii. waaw xam nga rek tey lu xew fële si euh, kii permanence bu waa waa Déthié Fall village vraiment dañ koy ñaawlu parce que dans un état de droit tey leader yi askan bi leader yi askan bi am nañu droit dem def seen conférence mais gis nañu ne dañ leen gazé ba rey leen sax seen seen benn bara gaañaa seen benn naataango journaliste mais Macky na xam ne lu muy def yëpp c'est une euh, c'est une c'est une peine perdue et que ñun dañoo pare pour

te nee nañ cause bi moo moo moo moo moo mooy lépp moo tax engagement bi faw mu am comme euh, ni ngeen ko gisee rek euh, ñu ngi fii nii ci di dem directement fi nga xamante ne moom moo di euh, camp bi nga xamante ne moom mooy fa lañ war a jeexalee bi nga xamante ne moom mooy manifestation bi ñu toppal leen gars yi rek ak lépp loo xamante ne dina fi rusee ci xibaar wala bépp nuñ ko waxatee bépp. bépp intervention bi nga xamante ne gars yi ñu ngi ko fiy jël dinañ leen ko dégtal ngeen di fàttali suñu naataango boobu nga xamante ne loolu ndox boobu dal na ko ci te Dakar ci suñu naataango journaliste di ko masawu bu baax a baax di leen di xamal ne ñoom defuñu leneen lu dul def seen i liggéey di fasal li nga xamante ne moom moo fi xew ci réew mi parce que ku toog ci këram ñëwut fii mën a xam li xew ci Sénégal c'est grâce aux journalistes qui font leur travail ni mu waree kon ku leen di loolu àndut ak démocratie àndut ak loo xamante ne euh, état de droit la comme nuñ koy waxee saa su ne kon journalistes yi dañ leen war a encadrer sécuriser leen ba li nga xamante ne ni ñuy def seen liggéey. ñu koy def bu baax a baax faraluñu kenn ni Sonko nii Macky du ay question Sonko Macky wa noo ñu yor waaye suñu liggéey la ñuy def comme policiers yi nu ñuy defee seen liggéey waaye tamit comme ñi nga xamante ne ñoom ñooy politiciens yi ni ñuy defee seen liggéey noonu la journalistes yi di defee seen liggéey kon li nga xamante ne ñu ngi koy def di leen di buntu xatal loolu dafa war a dak fii nii ci nga xamante ne moom mooy diwaanu Sénégal nga xam dañ fiy sonal wala dañ fiy faral di sonal ñi nga xamante ne ñoom ñooy journalistes yi Eh, Koumba Sow daa doon wax lu am solo jëmale ko ci liggéeyum journaliste yi nga xam Macky Sall dictateur eh, Koumba ndax mën nga dikkaat ci li nga doon wax sànq waaw Ibrahima Khalil ñun dañuy massaw suñu bi nga yi laal nañ ko sa Dakar di wax ne journaliste yi dañ leen a war ñu liggéey ak xel mu ndaxte comme ñooy jottali xibaar askan wi kon dafa jaaru ñu jox cër jox leen bi nga xamante moo ko ci ñoom ndax seen liggéey dafa noobul ki nga xamante ne bu lépp nëbboo yow yaa koy wane muy li baax ci dëkk bi waaye tamit lépp li nga xamante ne war nañ koo defaraat ñu ñu joxe ci seen xalaat ñoo koy génne wan ko askan bi kon dafay jaar ñu jox leen cër ñu ngi ñaaru bu baax baax nag niñ leen di maltraité niñ leen ci seen liggéey di wax ne waaw rafetlu wuñ ko parce que liggéeyu journaliste moom mun a def leneen lu dul liggéeyam du Seck saa tey jii ñu gis ne manifestation saa yu amee ñu ngi dal ci kaw journaliste ba tey moo ci mujjee gis ngeen suñu confrère boobu li ko dal tey jii tey jii ana nan ngay jàngatee boobu situation. da ngay naqarlu bu baax te tamit di wax ñu fi ne rek ñu xam ne journaliste yi defuñ leen lu seen liggéey. seen liggéey dooga la ñuy def noonu leen leen a bàyyi def li ñuy liggéey def seen liggéey bu baax ndax ñoom ñoom ñëwuñ fi manifesté wu dañuy ñëw rek pour xool lu ñu ñu won ko askan wi kon mu leen war nañ leen a mën ñu liggéey seen liggéey ci ni ñu war a liggéeyee teg ko ci yoon jàllale ñu war a jàllale askan wi jot ci ñëpp nekk si jàmm loolu dong lañ leen laaj si moom laajuñ leen leneen lu loolu kon nag ñu gis ne situation bi saa yu demee nii dañuy jàpp na ci ñoom la parce que tey jii amul kenn ko xamante ne yow déclaré war a waxuñ ne yaa ngi ci résidence surveillée ñu loolu nag bu xewee ñun tant que journaliste lu ñu war mooy dem wari information bi ñëw dégtal ko nit ñi woon leen ne lii moo xew waaye tey ji bu ñu demee bañ mayatuñu journaliste yi fu ñu liggéeye tey jii ana loolu tey jii fan nan lañ ko mën a waxee ndax Sénégal état de droit lañ ko mën a tuddee ndax lan lañ ko mën a tuddee tey jii jamono jii nii. lu doy lu doy waar la comme état boo xam ne état bu ñu nekk lu ñu war ñu ñëpp daal ku nekk soo amee sa kaddu yooyu yoo jàllale. war nga koo mën a jàllale si si jàmm war nga koo mën a jàllale si jàmm kon loolu a baax traitement bu ñuy def si journaliste a xoolaat a a Sall lu ñu indi si terrain bi mooy xool li nga xam ne moo xew ñu ñu wane bi jot ci loolu dong lañ mooy suñu liggéey defaatuñ leneen nag ñu ngi naqar lu baax na li nga xam ne mooy xew Dakar tey suñu moromu journaliste boobu nga xam ne oto moo jaar ci kawam ba daanaka fi mu ne nii ngi hôpital te xamuñ ci lu ne ñu koy ñu ngi koy masawu bu baax di masawu ay ay njabootam di masawu ñëpp. privé bi nga xamante ne moom lañ foofu lañ war a yemale manifestation bi El Mansour papa nañ la. delloo na ziar. tey jii nga woor ñëw ci marché bi tey ana looy sentir tey. tey li may lu bëgg rek bëgg rek tey nja Sénégal yëpp jóg pour libérer le Sénégal avec Ousmane Sonko loolu moo ñu tax a jóg boo gisee ñun mag ñi njëkkee ñu bay duñ ko bàyyil xale yi ñu ànd escorté jàppale xale yi ndax ñu gën na ci li ñu nekk waaw loolu di ay cadeau yi nga xamante ne ñoom ñoo. sant seen teewaay si weeru koor la nekk. pour ñi nga xam ne ay jullit lañ ñi nga xam ne it ay catholique lañ nekk yun seen carême ñu nekk si bés boo xam ne tey jii ñëpp xam na ne naaj wi tàng na woon mais terewul ngeen bàyyi seeni soxla ñëw pour wane seen solidarité pour wane seen engagement pour wane ne yéen da ngeen ni bañ nooteel si kii nga xam ne mooy soxna Batoor nekk ci dëkk bi nekk ci réew mi di salfaañee charte ndey réew mi di def lu ko neex looloo waral tey jii ngeen bravé li nga am ne mooy soleil bi looloo waral tey jii ngeen ñëw taxaw ngir xeex li nga xam ne mooy nooteel kon waa Mbour ñu ngi leen di gërëm ci loolu di wax ne gëm naa ne waa doo leen nangu Ousmane Sonko gën leen est-ce que di ngeen nangu Ousmane Sonko gën leen a gore may wax ne président Ousmane Sonko ngox moo ko bàyyi ci combat bi may wax ne président Ousmane Sonko gore moo ko bàyyi ci combat bi su fekkoon ne intérêt personnel su fekkoon ne intérêt personnel kon xàddina bu yàgg wante bu boobaa du xam naka lay def ñi nga xam ne bàyyi nañ si seen bakken daa am ñoo xam ne seen bakken da see wadd président Ousmane Sonko ngorom may ko mu dellu gannaaw ndax sol boo léegee du xam ñooñu naka leen leen di xoole bu ñu tasee yomal xiyaam loolu moo tax tey jii mu ne ñëpp ñoo xam ne projet bi ñor na leen ñépp ñoo xam ne Sénégal ñornalen ñepp ño xamné askanu Sénégal ñornal ak bañ nooteel ñom ñepp dañoo waxal taxaw tém bañ lii nga xamné mom la soxna ba taw di def ci réew mi lo xamné ne ko ci dara lu bakken kon yéen waa Mbour ñu ngi leen di wo ci mobilisation ñu ngi leen di wo ci sen engagement ngeen gën ko feddali ngir taxaw ngir li nga xamné mom la présidence man songu di xex ñu and sék mom mu baña wét ci xex bi